ñëw naa fii sama xel dal na parce que lu ma fi fekk mooy euh, lépp lu ñu euh, euh, yaakaaroon lépp am vol yi ñi ngi dem si à l'heure passagers ñi ngi leen di toppatoo bu baax ku nekk mi ngi def kuréel yëpp ñu ngi def seen liggéey kaaraange bi xam na ñu aéroport bi am na ay investissement yu bëri yuñ fi def fii si wàllu kaaraange te xam ngeen ni aéroport yi monde bi dafa nekk des infrastructures sensibles ñu koy tubaab yi di wax Euh, bu ñu fi ñëwee euh, ñu defoon ay investissement yu am solo ñu continuer di ko def si ay si aéroport international bi parce que suñu aéroport bi dafa nekk euh, aéroport bu am solo bu ëpp ñi ngi dépassé nañu pratiquement nombre passagers yu ñu doon am 2019 donc ñu ngi ñëw léegi ñu yegg 3 millions de passagers donc suñu aéroport bi day gën a dalal ay ay ay ay ay passagers donc kaaraange bi dafa gën a yokkee